wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala ci mbokk yi nga xamante ni tey lañu ñu bokkal barab bi yépp di jiital ci nuyoo bi sama xarit sama wëllëre sama mbokk sama doomu ndey ñaari yoon muy ci wàllu aada diggante séeréer ak joola waaye nag muy ci wàllu pas-pas muy Cheikh mussa Cissé Ndiamé borom daaru nga xam ne dafa jël teraanga bu rëy rëy rëy boo xamee wax dëgg yàlla jàpp nañ ne am nañu ñu ko gën a yeyoo ci ëxlu kër Cheikh Moussa siise waaye mu ne déedéet lii dama koy defal sama waa ji sama joolaa bi ni ma ni may wooyee mu neex ma lool mu de Cheikh Aliou Diouf karamallahu wajhu nga xamante ne ku ko xool wax dëgg yàlla lépp loo mos di dégg ci Seydina alin te yonent bi sallallahu alayhi rek fekk nga ko ci moom te dinañ ci ñëw ci biir waxtaan wi di ko jox suñu nuyoo di ko jox tamit suñu mbette waaye tamit di ko jox tamit suñu yëg-yëgu bànneex ci lii nga xamante ni cëral nañu ko te muy wone ki mu doon muy wone ni mu yaatoo muy wone ne li xam-xam ba jàngale ci làmmiñu yonent bi ne jullit dëgg mooy gi nga xamante ni dafay yéene moroomam li mu yéene boppam kon moom kawe gi ko yàlla kawel yéene nañu ko ba tax tey mu jol bés bu mel nii di bisam summi dara jaam sànni boppam sànni léppam solal ñu lépp ngir yëkkati ñu kon Seydina Cheikh juuf Diouf bi ah wax dëgg yàlla kuy xool sang bu la gisee gis na sang ndax dañ ne ah wallaay ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan ndax dañ ne alxasadu laa yasadu bu fekkente ne juum ma ci araab bi maanaam ab sang du iñaan te lii da ko wone buñ ko joxee nuyoo bi nag mu jàllale ko ci càllale bi ni ko Cheikh Babacar indee ba mu yegg ci suñu maam Diop Kous nga xam ne tey mën nañ wax ne moom lañu fi xoolee Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru ndax li tax moom moo fekke woon wax Cheikh Moussa wax tontu ko mu jël te ba mu jëlee la mu dogu woon moo waral tey tànt bi ndax moom moo jëli woon waaye tey wax dëgg yàlla ay junni junni Cheikh Moussa ngi fi kon suñu maam jaaraama jërëjëf waaye itam mu jottali ñu ko waa dëkk bi jaare ko ci imaam yi jaare ko ci ñi nga xam ne ñoo fi yor ndombal tànk ñépp waaye tamit jaare ko ci itam suñu yaay yi nga xamante ni tey wax deug yalla fu jëm taxaw rek ci ñom la ko suñu borom jaarale kon ñu jël nuyu mbétte bobu ak cant gogu tassale ko ci ma sha Allah rabbi di bëggee Cheikh Babacar sama doomu dara sama rak nim ko waxe biñ ñi fekk ci université bobu fokk na jëmmal fa mbir yi jafe na waaye dañoo jàpp ne rek ci kale Cheikh Moussa yi nga xam mom muy mécanicien bi eh, lañu bokk ba tax tay mbir ma ubbeekoo université ndax dafa waxoon ne bu sañoon buntu kër gu ne te buntu kër yi yemul ci fi kër yi fi nit ñi di yeewoo waaye fépp foo xam ne nit ñaa nga fay daje rek ci buntu kër yi te mu nga tàmbalee ci nit ku ne ndax nit ku ne ku ne xam nga ni kër sa jëmm ji kër la yow yaa dëkk ci biir kon suñu borom dogal Cheikh Moussa ci namm-nammam ñu daje fa ci jamono mu xiir ñu ci ñu jëmmal foofu mbir ñoom ñu fekk ñu fa doon suñuy rakk te wax dëgg yàlla bu ñu xoolee ba tey université suñu xool day sedd ndax dañuy xam ne ñoom ñoo ñu gën a mën liggéey bi te gën nañ koo yaatal nu mu gën a yaatoo li tax ñu sant ko nag mooy awala du sirul ab bi doom mooy mbootu bàyyi te ku ko dégg ni mu waxee ni mu ni ni ni muy doxalee bi ko maamam ne ku bari tiitër nga mën a ko ci deret ji la ndono la du woon sax pour tooy waaye ngir wax ne rek nit ku ne rek li nga dund rek mooy feeñ ci yow waaw wolof dafay wax ne kanam du kaso waaye koo ko tëjal mu xam ko kon koo ko tëjal mu xam ko mooy yëg-yëg la bu nekk ci biir boo xam ne mooy feeñ ci kanam gi kon mu doon ab doom boo xamante ni mooy tax ku la xool xam ne kii xol bi dafa féex wala xol bi dafa tëju tey kon moom tey wax dëgg yàlla ku ko xool rek buñ leen nee Seydina Cheikh Alioune Diouf moo ko defar rek danga naan ëskay macha allah kon Cheikh Babacar bëgg nañ sant nañ te xel dal na. dalati na ndax yëgoon nañ ne mën ngeen ko te yéen ku ci nekk yaa gën a sa bopp yaa waxal sa bopp ne fa ñu jëm ñeme ngeen ko la ca war a dem yor ngeen ko kon amuleen ci sikki sàkk ak xalaat kon sant yàlla kon bu ñu bandangewoon tamit xam nañ ne pays yàlla bi di ngeen ko doxal macha allah rabbi waaye nag ma santaat nag koo xamante tey laa xamee ak moom fii wala boog ci laa ko bàyyi xel waaye ma bëgg ci moom lool muy Cheikh Aliou Diouf ndaayaan borom cant yi du kat bi du moom ah, ah bëgg naa dama bëgg ndax dafa jëmmal alxuraan ci li mu yëngatu ndax tey ñi xamul te réere danga nga dégg lu ne ñu wax waaye li Serigne Touba waxoon ne ëllëg nit dana dem sawara te li ko ko yóbbee du dara dul ñàkkaa dégg arab ndax diine ji ci arab la ñëw xam nga baatu sabaxa boo ko déggee ci arab buñ koy firi du ñu am baat bi dëgg waaye boo koy firitee ci tubaab sabaxa mooy gulwaar mooy célébrer waa célébrer nag boo ko déggee mooy lan tey ku gagné final bi ma diggante Manchester City ak Inter Milan du Manchester tey boo fa demee lan nga fay fekk gaa yaa ngay tëgg ñu ngay woy ñu ngay fecc ñu ngay tëb ñu ngay yuuxu loolu mooy célébrer loolu mooy baatu sabaxa lillaahi maa fi samaatu maa fi ard wa ma subhaana lazi kon célébration ak gloire ñeel na ki nga xam ne kon nag Cheikh Aliou Diouf Ndayane ak góor yàlla Baye Fall loolu lañ fi wone kon ñi xamul ñoo xamul rek di wax waaye boo ñëwee sax ci taarix Seydina Aline mës na di liñ naan boo bëggee lañ la wax ñu ne ah kii de moom bëgg na wala bëgg naa ba tey benn tànk laay laay fecce Seydina Alioune fekk nañ ko muy samp benn tànk di fecc di wër yonent bi ñu toog ba ci yàgg gis Seydina Jaafar nga xam ne mooy rakku Seydina Alioune di samp benn tànk di fecc di wëndeelu di wër yonent bi ñu ne waa lii lu mu doon lii lu ko waral mu ne yow Seydina Alioune fa ñu daggee sama ruux gi fa lañ daggee sa bos fa ñu daggee sama leer gi fa lañ daggee sa leer Seydina alin bëgg ci loolu ba tëb di caddi caddi di wër yonent bi ndax mbétte mu ne ko jaafar yow sama jëmm ji fañ ko daggee fa lañ daggee sa jëmm ji ndax ni sama jëmm ji bindoo ci lépp ni mu toll yow sa jëmm ji noonu la mel jaafar daal di dagg moom tamit commencé tëb di fecc di wër yonent bi kon lan moo ko waral du kon nag ku am mbétte te muy ci yàlla da koy célébrer yonent bi alayhi salaam mës nañu ñëw fekk ay soxna di way di fecc fekk booba gaaña demoon xare am fa ndam ñëw muy éthiopiens yi ñoo doon woy di fecc di dóorante ay jaas yi di selebre ak ñeneen i jigéen ñu ñëw wax ko yonent bi ne mu ne waa coow loolu mu doon ñu wax ñu bëgg koo tere ñooñu ndax Seydina Omar ni mu doonoon koo xam ne dafa tënku mu ne ko déedéet bu ko tere ndax ëxlu yëpp dañoo am seen bësu feet yahuut yi am nañ seen bos nasaraani ak ñeneen mu ne ko ñun tamit lii suñu bësu feet la ndax bësu ndam la muy bésu korité muy bésu tabaski ak ndam yi nga xam ne dañ koy amee ci kon bàyyi leen ñu yëngatu waaye ba tey teewul ñi nga xam ne dégguñu fa wax ja waxoo ñoom ba tey dañuy xeexe lool ne déedéet ay jigéen ñoo fa dajoon ak ay guerrier kon ca ñoom la yemoon waaye ñoom seen dégg foofu la ne kon nag yëngu bi moom ni mu fi demee woon nii sànq bëgg nañ ci lool ba tax na fee ñu nekkoon moo sori ci ñun rek waaye bëggoon nañoo fekk si Cheikh Aliou Diouf ba yëngatundoo ak moom ndax dara tënkuñu ndax Cheikh Moussa Cissé dafa ne indil leen ma seen ëmb yi ma imbil leen ko dindil leen ca la nga xamante ni amul njariñ joxaat leen ko kon nag li amul woon njariñ ci ñun mooy yëg suñu bopp mooy bëgg suñu bopp mooy kawel suñu bopp mooy tiitaru ndax dangay gis ku mer sax ne la man dama gaaw a gis sam bopp xeer yooyu yëpp Cheikh Moussa daf ñu ko dindil ba ñu oyof ba nga xam ne tey xob bu oyof bu ko ngelaw fekkee foofu rek da koo yëkkati te amul genn ngelaw goo xamante ni gën naa rëy te gën naa yaatu ngelaw li nga xamante ni moom mooy jottali baatu laa ilaha laa kon na ko mu fekk nga woyof tool da nga yëngatu kon gars yi nañuy yëngatu bu baax ci sikurullah macha allah ñi xamul xamuñu waaye nag ñi xam-xam te doxal te ñëpp mënuñoo ànd macha allah rabbi wax mu ne mbooloo moo gis rek dafa am la nga xam ne mooy seen pas-pas dafa am la nga xam ne mooy seen cëslaay maanaam moo leen di doxal ak di dundal mu ne moom pas-pasam ak cëslaayam mooy di tudd baatu laa ilaha illallahu fu mu mën a toll mu ne waaye nag di jàng alxuraan di ko nafar mu ne nag di julli ci yonent bi mu ne nag li mu jàng ci alxuraan tamit di ko nafara mu di jëfee mu ne waaye nag bëggu nitu yàlla yépp képp ku ne nitu yàlla la rek donte dañ la koo jiiñ sax te doonoo ko rek moom bëggaale na la Baye Niass moo waxoon loolu kon li tax ma indi lool mooy la ma ca neex ca wax ji mooy dafa ne kuréel boo gis am na pas-pasam kon tey kuréel bi nga xam ne moom lañuy ñuy woowee jullit am nañ pas-pas te pas-pas bi alxuraan moo ko jàngale kon képp ki nga xamante ne da ngay woote woone jullit nga nga réeroo ak dinaa alin fii ci Ñaaxaar mba boobu nga ko di nga ah, mba nga di ko xex dafa fekk ne kon yow pas-pas bobu nga xamanteni tay mo moo boole jullit yi dafa fecceeku ci yow wala pas-pas bobu yow da ko koo te foog na yaangi ci bir te fekk na génn pas-pas bi dak na la moy lan boo nee waruñu ko top boo nee itam waruñu ko sukkal di ko raamal ndax ken warta top ken ñun ñep yalla lañu wara top alxuraan ñëw na la iqra bi ismi rabbika boo xoolee foofu dafa ne iqra waaye waxul aqrawu iqra mooy jàngal kon am na koo xam ne moom mooy joxe ndigal li ak ku ñuy jox ndigal kon bu dee am na kuy joxe ndigal ak ku ñuy jox ndigal rek sëriñ ak taalibe teew na moo xam jébbalu am na moo xam jébbalu amul mu ne iqra bismi rabbika lazi xalaqa mu nekk iqra yow jàngal bi ismi rabbika ci sa turu ki la moom ëllëzi moom ma nga xam ne wala ci tur boobee la nga xam ne xalaqa ca la bindee xalaqal insaan min alaqin kon dafa mel ni la ko soxol te soxol lépp mooy tënk na ne mbindeef yi li ñuy bari bari yëpp mbindeef yëpp ñu ngi tënku ci nit duma detaay ndax yéen aarif yi xam ngeen kon iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa mom mi nga xamne mo bind waye waxul khalaqa samawat xaw waxul khalaqal ard waxul waxul waxul waxul te yeb ay mindef la waye dafa ne khalaqal insaan kon lolou mo lay won ne li ci dess yeb ay feñu way la ci insaan mom modi nit mu ne waaye na khalaqal insaan min alaqin kon dafa melni tour bi nga xamne mom la waxoon fële te feeñalul tuur bi baatu xalaq bii moom moo koy génnee ba ñu mën ko xam wala boog benn la ci bunt yi mu ne xalaqal insaana min alaqin baatu xalaq ci arab buñ ko doon wax ci français mooy ce qui s'accroche maanaam loo xam ne danaan ñàpp mooy luy jëfandu kon nga gis ne foofa tamit suñu borom mu nga la fay wonewaat ca xalak boobu nga xam ne dañ ne mooy lan ab nen la maanaam ginnaaw bi nga xam ne liy jóge ci góor jóge na ci góor ba dugg ci jigéen ñaari ndox yooyu bu ñu dajoo dañuy daal di def benn comme pepp ceeb mbala pepp dugub mbala pepp gerte wala pepp mboq léegi nag pepp boobu dafa am foo xamante ni tey ci butitu njurukaayu jigéen bi dafay ñëw mu jafandu fa mu suulu fa mu jàpp comme tey bu la xaj màttoon wala tey bu doon yow dangaa jàpp dara jamono bu jàppee foofu rek ci lañ koy tuddee alaq kon kay loolu mooy pepp bi mënul demal boppam waaye butitu njurukaay bi tamit mënul defal boppam liggéey bi kon ñaari dañuy jàppoo kon sëriñ am na taalibi am na kon jamono bi nga xam ne si jëmm ji jëmmoogul sax suñu borom wone na ne sëriñ ak taalibi moom mooy li fi mooy lan sëriñ ki nga xamante ni tey moo yore njariñ bi mooy ki nga xam ne mooy sàkku njëriñ ak ci bunt bu mu mën a doon moo xam buntu seytaane la moo xam buntu leer la waaye sëriñ ak bi mu mënta ñàkk parce que suñu borom noonu la organiser mbir mi kon ba mu ne iqra rek wane la ne kon dafa am kuy digle ak ku ñuy digal kiy digle mooy sëriñ bi ki ñuy digal moom mooy taalibi bii sàkku bi mu ne xalaqal insaana min alaqin rek wane ne foofu ci maqaama xalaq ni nga xam ne noonu la xalaq bindoo mooy dafa doon loo xamante ni dafa war a dund te soxla foo xam ne foofu lay jëfandoo pour dund kon nag fa muy jëfandoo mooy sëriñ bi moom may jëfandu moom mooy bi kon nga gis foofu ni suñ borom indee nga xam ne kon ku ne waruñoo topp nit wala waruñoo topp Cheikh Aliou kon dafa fekk ne yow dangaa déggul aaya bi wala boog dangaa ngaa xeeb bi wala da nga koo soxoree ndax da ngaa bëgg ñu topp la te yow yoroo lu ñu la toppee. kon li tax alaq boobu mbir moomu di mën a jëfandu ci lii parce que bu fa jëfandoo dafay suulu ci biir comme ni ñuy jëmbatee wala boog comme ni ñuy euh, maanaam jiyee ab doom ci suuf si nga gis mu juddu daal di focc. comme li nga xam ne gerte bi nga jëmmat noonu lay foccee def benn xal ak laam noonu ngay def ci sa biiru yaay muy màgg di màgg di màgg di màgg ba jaar fi mu war a jaar ba waxtoom jot mu daal génn résultat bi génn kon dëppi foofu lañ la xamal ne nit moom mënta am dara te amul ci fu mu wéeru maa ko jotalal sa bopp maa ko defal ni sa bopp mënul nekk faw nga am foo wéeru mu ne iqra wa rabbukal akram na nga jàng ndax sa borom moomu nga xamante ni al akramu mooy koo xam ne ni ku tedd la ku tabe la boog maanaam ku tabe la lan moo tax ku tabe la mooy la mu boole ba tax nga yëg si ak bagage yi nekk ci yow yëpp mooy wane ne ku tabe la te tabuk yàlla gi fi nga koy xamee du ci xéewalu saayir yii waaye fii ndax yàlla suñ borom mu ngi naan ci alxuraan ndax du maa leen jox dégg gis jox leen gis jox leen yëg kon xéewalu yàlla yi mooy suñu jëmm ji ak bagage yu mu àndal waaye du weccet wi ak kër yu rafet yi ak oto yi déedéet loolu liggéeyukaay la boo xamante ni suñu borom bu ëllëgee danañu laaj yooyu ma leen joxoon ci lan ngeen ko def waaye nag jumtukaay yi ngay liggéey mooy sa jëmm ji buy menacé sax yëfa da nga gis naan bu ma neexoon ma dindi seen gis yi dindi seen euh, dégg yi ak yu demee noonu kon nga xamne kon xewal yoyu suñu borom motax mu tagge bopam fofu ne yow mom nga xamne nak ya wara sàkku ji ab serigne sàkku googu ab serigne pour mu meuna nek fokk yàlla xewale la lay tax nga meuna jeriño ci serigne bi moy sa deg moy sa gis moy si yek mune mu ne allazi xalama bil xalam xalama al insaan maalam yaalam moom mooy ki nga xamante moom dina xamale nit ki ci mbind kon mooy ci am njàng waaye nag dana xamale nit ki ci beneen xam boo xamante ni lu mu xamul la kon mooy loo xamante ni duñ ko jëlee ci am njàng waaye dañ koy jëlee ci diggante maanaam kàddu akub nopp kon ki nga xamante ni tey yow dégg nga maam yaa ngi gaar ni ko Cheikh baabakar waxee ñi nga xam ne ñu ngi wut si Seydina Alin balaya bo xamne yow yàlla déclarer na la guerre ndax yàlla suñu borom dafa jël yërmandem mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wasare ko ci mbolam sen ci aduna bi waye bimu ko wasare ci mbolam sen ci aduna bi feñu way bu ñëk bi muy Muhammad da fay def àpp comme ñépp fa am fu mu juddo am fu mu foofu am fu muy yem ci ak dundam donc fofu mu xamne mom la wara yem ci ak dundam bu fa yemee te yermande yalla gi wara tasaro kon suñu borom fay jël yermande ci solal ko yeneen i jëm jëmm nak nag la solal muy dem muy dem ba yexi si ci ñaaxar ci sayidina Alin nga bañal sayidina Alin kon jappal ne bañaloo ko waaye tey maa ngi lay xamal ne yonent bi ali salam sayidina Muhammad nga bañal yalla nga bañal te yalla nak kuko bañal bu bañal la te yalla kumu bañal rek nga sanku ndax mom neena na ci asaman sa yi ci suuf yeb mu ngi ci mom kon sax ñàkk a dégg moo tax yow nga bañal cheikh bi waaye iqra moom jàngal na la ne moom cheikh bi moom danga nga ko war a nangul gannaaw loolu bi nga xamante ni weesu na suñu borom def njàngale mu rëy ci ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni dafa wax ne subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barak naa hawlahu lin nuuri yahu min ayatina subhaana wax naa ko sànq mu ne nangeen ngeen màggal na ngeen célébrer ka nga xamant ni asra moom moo tukkil moom moo tukkil jaamam bi minal masjidil xaraami ilal masjidil haqsa nga xam na ci zaahir dañ naan moo ko tukkilee ci màkka yóbbu ko ca jàkkay màkka ja yóbbu ko ca jàkka ju sori ja muy jàkkay Jérusalem waaye xoolal lim teg ci aaya bi yéegagul ci kaw asamaan de waaye suñ boroom mu ne li nuuru yahoo min na kon xam nga normalement bi mu ko jëlee màkka ñëw fii dafa yéeg asamaan waaye aaya bi indiwut loolu dafa waroon ci yéeg ne ko asra ah min samaa yi a wax li nuuru yahoo wala boog asra ilal rabbi mu tukkal ko ca majin ca ca ca masjidul aqsa indi ko ci moom yàlla li nuuri yahoo ngir leeral ko min ayatina aaya ya fa ñun muy junj ya fa ñun waaye bi mu ne asra bi abdihi laylan mi al masjidil xaraam ilal masjidil aqsa allazi baarak naa hawlahoo foofa rek ci la suñu borom dugal ne li nuuri yahoo ngir ñu leeral ko kon maanaam yemul ci ñu won ko waaye dañ koy won ba pare leeral ko liñ ko won mooy ngir mu xam ko kon yematul ci gis waaye gis gi dafa ànd ak settantal min ayatina yenn ci suñu ay junju kon ndekete yoo suñu borom da doon doxal sirru yonent bi moo tax mu ne asra baatu asra mooy voyage kon mooy asarru seyru mooy tukki kon foofa danga nga fay déggee na yonent bi kon gindeeku woon na waaye nag bii paa dañ ko commencé doxal nag ci pays yi ngir mu xam lu ci nekk li mu doon kon nga déggee ci ne subhaanallazi asra bi abdihi lan la suñ borom wax yaa ayyatuhal nafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadxuli fi ibaadi wadxuli jannat kon bakkan boobu nga xam ne nii dal na ba sant borom bi borom bi sant ko ci lay doog a doon ab jaam <coughs> kon ki nga xamante ni xamagut yàlla mu judd ñu ne ko joolaa nga séeréer nga wolof nga mu gëm yooyu mu gën a màgg ñu ne ko léegi yow góor nga jigéen nga mu gën a màgg ba dem ba commencé liggéey ñu ne ko yow patron nga directeur nga nàngam loolu yëpp mu gëm ko defe ne loolu mooy moom muy personnalité mi bu demee ba suñu borom dimbalee ko ku mel ni Seydina Alioune Diouf mu wax ak moom ba xel mi ràññee ne nekkate yoo la ma jàppoon yépp du loolu ndax li tax mooy bés a ngi ñëw ma taqali kook loolu moo xam retraite dafay jot wala doole dafay wàññeeku wala dee dafay ñëw wala feebar dafay ñëw loolu yépp liñ doon def ne sama tur la loolu tey dina bàyyee dana dana génn ci man kon loolu du man jamono bi nga xamante ni nag yow yëg nga loolu ba ne léegi naa fase loolu bàyyi loolu te ñëw keroog nga doon jaamab yàlla mu ne kon asra bi abdihi laylan minal masjidil xaraam ci jàkka jooju nga xamante ni alxaram maanaam dañ koo aar kon jamono bi nga xam ne yow sa yëg-yëg wëlbatiku na ci lii nga xamante ni maanaam ci saahir mooy lu dul yàlla ngir wuti yàlla keroog nga doon masjidul xaraam keroog la la suñu borom aar ilal masjidil aqsa mu yóbbu la ci jàkka ju sori ji xam nga lu tax muy jàkka ju sori ji dangay ngay dëkk ñaaxaar naa Alioune Diouf dëkk ñaaxaar nga réere ko te fekk ne yow leeru yàlla gi ngay wër gi suñu boroom wax ne moom lañ koy leeral mu ngi ci moom kon sori na la jege te sori sori te jege kon jege na la waaye sori na la ndax xéewal yi ak ngëneelu xam-xamu bi tax nga ñëw fii yàlla suñu boroom indi la fa réere nga ki nga xam ne ni moom la koy jox Nak dafa ne xam yalla xam fam tegg yonent bi kon yonent bi muy xam-xam ñaar ba fukkel at bi ak ñet ndax fukki at ak ñet la yonent bi def makka mu def fukki at ci medine waye bo xolé rañan bi fukki étape la fukki étape yoy moy fukki at yi nga xam ne bi dund na medine bu ci nek rek amna lu mu mengol ñu ne asaman bu ñëk bi ci yenn netali yonent bi alayhi salaam suñu mam la fa dajel maam aadama mooy kan abul bashar mooy baayu mbindeef yi moo jur ñépp ci moom la ñépp dottee ko macha allah yonent bi alayhi salaam première at bi mu dugg Makka ca la sanc première communauté musulmane comme li nga xam ne noonu la suñu maam aadama sancee la communauté humaine muy mbindeef yi ci doomu aadama yi muy ci nit ñi kon nga gis ne daje bi mu dajeeg yonent yooyu du dara lu dul ya ca ñoom la ko suñu borom di yee ci moom ngir ya mu wàccee ci ñoom ndax ñoom ku ci nekk ci ñoom benn maqaama la yàlla wàccee ci yow te yonent bi alayhi salaam seydina Muhammad mooy ki peeg maqaama yi kon ndekete daje bi du dara lu dul branchement bi nga xam ne la nekk ci ñoom dafa war a wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon ni seydina Adama alayhi salaam doone ki yàlla njëkk a bind. nga xamante ni ci moom la tey ñun ñëpp jóge kon mooy ki nga xam ne moom moo yaatal xeet bi ci moom la xeet wi sañce Seydina Muhammad tamit première atam Médine ci la sañc maanaam ëxlu bu njëkk ci ëxlu jullit yi xam nga muy doon mu xaajiruuna yi nga xamante ni moom indi na leen ak waa Médine ñu ne ñaareelu asamaan bi mu dajee fa ak Seydu Seyduna Heesa ak Seyduna Yaxya muy Jean Baptiste Seydina Yaxya ak Seydina Isa boo xoolee surtout Seydina Isa dafa doonoon koo xam ne woo bi mu ñëwee yax Yaxya dafa woote ba sonn gars yi faale wuñ ko loolu leen ko def mu ne leen am na koo xam ne mu ngi ñëw bés bu ñëwee di ngeen ko nangul ndax man ci ndox laay setalee waaye moom nag ci leer lay setalee yonent yàlla Isa bi mu ñëwee am na jamono dafa woote woote ba woote bi dëgër mu daal di laajte ci mbooloo mi ana ñan ñooy ñi nga xamante ni ñooy ñëw dimbale woote yàlla bi fukki nit ak ñaar jóg ñun ne ñu ngi lay seedeel te wax nga ñu bëgg suñu boroom seedeel ñu ne ñun ñii taxaw nañ ngir dimbale diine ji baatu ansaar génn foofu boo xoolee ñaareelu at bi ca Médine ci la ansaar yi daal di ñëw wuy si yonent bi sallallahu alayhi wa kon mu méngoo ak maqaama boobu nga xamante ni mooy maqaama yonent yàlla instant bi mu dajale ci ñaareelu asamaan bi ñetteelu asamaan bi ñu ne ci la dajeeg Seydina Yuusuf alayhi salaam boo xoolee Seydina Yuusuf alayhi salaam dafa doonoon koo xamante ni maanaam suñu borom daf koo baaxal waaye mbaaxal gi ko yàlla baaxaloon ña ko yàlla booleloon ci ay mbokkam ak fi ko yàlla jaarale ci jaar-jaaram yépp dañ ko ko soxore woon iñaane woon ko wor di ko wor ci zahir mbokkam yaa ko njëkk a wor sànni ko ca teen ba biñ ko indee euh, misra muy Égypte fañ ko dëkkaloon kilifa ga soxnaam xemmeem ko bi mënulee jot ci moom mu mu mu war ko jaxase ko ak buur ba ñu tëj ko kaso kon mu doon ay wor yu baree bare ba mujj gi maanaam mu doy jele ci ay choono yu bari bo xoolee tamit lolu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñettelu at bi mo dajee xare bi ñi wax xare Uhud nga xam bobu boobu yonent dafa tek plan ci xare bi ni muy demee ne fiñi ñuy ni la mel dama bëgg bu ñu demee di song xare bi yow diw ak diw ak diw ak diw ak say mbolo na ngeen tok taxaw ci montagne beulé tanké que ngi taxaw ci montagne bi buñu ñu dominer bi ñi duñu am fuñu jaar ndax buntu bobu rek mo fa am te bu ngeen fa taxé da ngeen di fatt buntu bi ndax da ngeen leen di tim ak seen ay fit waye biñ démé ba xex bi julit ñi commencé ko gagné ba yéfer yi commencé daw di bayyi seen alali. ñi nga xamné ño doon xex ci suuf commencé di for alali. ndax boba alal ji mom bu xex amé lo for ya mom. légui ñi nga xamné ñu ngi nekk ci montagne bi di gis ñi di for ñu ne waw bu dé lo for ya mom. te ñi ñu ngi for té ñun foruñu kon bu boobaa ñun dañuy per nañ wàcc dem fori bi ñuy wàcc am ñu ne leen déet tey ngeen a dégg ndigal bu leen dem ndax yonent bi aleyhi salaam bu ñu fi jógee fi ñuy wàccee di dem fori Xaalid ibnu Walid booba doonagul jullit gis loolu mu xam ne kon bunt bi ñu fattoon fitërniku na mu wiiri jaare foofu ñëw keroog dañoo massacre jullit yi ba wax nañ ne sax gaañ ba ñu gaañoon yonent bi foofu la ba ñu ne yonent bi aleyhi salaam sayyidina Muhammad dee na ba jullit ñi naroon a jaxasoo ak yu demee noonu kon wor bi nga xamante ni mbokk ya waroon nañ ko Seydina Yuusuf keroog tamit mbokk yi war nañ ko Seydina Muhammad ci digle bi ak plan bi mu tegoon ba tax tey loolu naroon ko indil musiba kon loolu mooy ñetteelu asamaan bi koy maqaama Yuusufa wàcc foofu ci moom euh, mu ne Seydina am na lu mu ci yokk ne Seydina Yuusuf dafa doonoon firikatu gént itam ba am na ñu ko seet si woon ci gént wax ko lu amul mu firil leen ko ba mujj gi mu am neneen nu mu demee loolu tamit dal na yonent bi alayhi salaam ci ñoo xamante ni ñëw nañ wax ko loo xamante ni wax du noonu ba mu àtte ci àtte boo xamante ni naroon naa jur jéye gis nga kon foofu lañuy déggee li tax ñu ne àttekat bi moom day àtte rek ci li mu jàpp ne mooy dëgg ak ci li mu dégg waaye yàlla mooy àttekat bu mag bi kon mooy wor ba ñu jéemoon a wor yonenti yàlla yuusufa ci wax ko gént yu amul ngir mu firi loolu tamit dal na yonent bi ba nga xamante ni tamit jéye jéye naroon nafaa faa génn macha allah jërëjëf Baye Ndiaga ñu ne ñeenteelu asamaaw bi ci la yonent bi alayhi yegg ci ñeenteel bi ñu ne ñetteelu asamaan ba yonent bi alayhi salaam nee na fekk na fa ay malayka yoo xam ne ay drapo yu vert la ñu yor drapeau bi ñu yor couleur bi verte la mu ne drapo mu ne mu malayka yooyu weeru koor ak bésu laylatul xadre la ñuy gën a yëngatu ak di yëngal seeni drapeau ñu ne ñoom lan moo leen tax a jóg mooy di xool ci waa kaw suuf tuddukatu yàlla yi jullikatu mbooloo yi naafilakatu euh, guddi yi ak seedekatu dëkk ñoom ñooñ ñoo leen tax a jóg xam nga mënoon na wax kiy tudd yàlla di julli di seede nga xam ne lépp dafay dajee ci kenn waaye fii daf fi wone ne li ñenn ñi di bañ ka tudd yàlla kese nit ki mën na koo nekke mu doon yëfi boppam te du def li ci des te loolu xaddis ñëw na ci ndax loolu moo tax nit ñi comprendre ñu maqaamay Baay Faal mu ne katu yàlla yi katu dëgg yi mune julli katum julli mbolo moy kon ñi nga xamne dañuy boole xol yi ndax julli mbolo lolu kessa la de du ànd ak mbolo mi waye julli mbolo junj bi moy boole xol ya kon julli mbolo fi rek la mëna am ndax li tax mbolo lañ man sama cheikh bokkul ak cheikhou Baye Gueye bokkul ak cheikhou kenen ak kenen te pourtant ñu ngi fi daje ñun ñëpp nekk ben di bëggante ci suñu biir parce que li tax moy xol yi ñoo booloo ndax xol yaa set ndax alquran mo ne wa nasaxnaa ma fi suduuri min xillin ixwaanun ala sururin mutaqabilina bés bu ñu dindee gàkk-gàkk ba mooy loolu ñu opéré woon ca yonent ba sallallahu alayhi wasallam sallam mooy liy tax ngay def lu defewul wala ngay yor jikko yooyu nga xamante ni suñu borom gërëmu ko muy soxor ak iñaan ak siis ak yooyu ni demee mu ne bés bu ñu ko dindee ci yow mu ne ixwaanun da ngeen di doon ay frère ay mbokk ala sururin ci mbétte mutaqabilina ak di teralante kon julli mbolo ba wax moy ña toll ci maqaama sédé katu dëgg yi moy ñi xam yalla ndax benn dëgg rek lañu yalla sédé lo moy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an na muhammad rasulillah bobu dëgg rek lañu suñu borom ma sha allah rabbi kon kat yi ñoñu la kon batay di dugaat ci katu yalla yi ndax katu yalla yi dëgg-dëgg ci maqama yoy lañuy dox mune lan ak ñi nga xamanteni tay ñoy ñooy la guddi te la këtu guddi yi amul lu gën a kawe naafi la du dara lu dul mooy jaamu yàlla booy defal sa bopp te kenn santu la ko te kenn forcé wu la ko waaw kon tudd yàlla bi ngay tudd yàlla suñu borom saa su ne ak foo mën a toll kon dafay dugg ci xeetu naafi la ci foo mën a toll ndax suñu borom nee na tudd leen ma balaa ngeen di julli waaye bu ngeen jullee ba pare tamit dee leen mooy tudd wala neexoon yem foofu kon ba mu jógee ci ñetteelu asamaan boobu nga xam ne xéewal yooyu am na fa kon aarifina billaahi yi bokk ci ca ci feeñ ci mu ne ñeenteelu asamaan bi ca la dajeeg Seydina Idris Idris mooy ki nga xam ne ci moom la xam-xam yu bëri njëkk a wàcc muy xam-xamu science mathématique nu ñuy nattee nu ñuy waññee ak yooyu yëpp tey ci moom la feeñ comme ni ñuy nattee lu diis comme ay kilogramme moo ko génnee ni ñuy nattee muy mètre moom moo ko génnee ak yu baree bare ak ni ñuy calculer ci ay chiffres yu demee noonu kon Seydina Idris moo njëkk a bind ci yonent yi salaam muy ñeenteelu asamaan boo xoolee tamit ci gàddaay gi ñeenteelu at bi ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind lettre yi nga xamante ni moom la yónnee woon ci buuru àdduna bi ca ca nguur ya waroon yépp muy Misra Xisra muy lan ay Égypte ay Irak ay Cham muy muy muy euh, Syrie ak dëkk yooyu yëpp ba Byzance muy Rome fii tey ci Italie dëkk yooyu nga xam ne amoon na ay buur yëpp ca la bindoon lettre yi pour wax leen ne leen dëgguk yàlla gi feeñ na tey ci jamono maay ki ñun ñëpp doon xaar ñëw leen jël si ko kon maqaama bind moom ci ca ca ca Seydina Idris kon moom la yonent bi alayhi salaam jëli woon ca ñeenteelu asamaan ba waaye la ca neex mooy ñu ne bi mu demee ba war a faa déparé dafaa dajeeg Seydina Ibrahim te warul dajeeg Seydina Ibrahim foofu. mu ne ko waaw sang bi yow lu doon say tànk fii ci barab bi mu ne ko ñeenteelu asamaan bi dafa doon asamaan bi nga xam ne ci laa namm di ñëw li tax ma namm fi di ñëw nag leen rek moo ma tax a jóg mu ne ko ah. mu ne ndax damaa seetlu ci mbindeefu yàlla yi amul ku gën a rafet amul ku gën a set amul ku gën a sell amul ku gën a kawe maqaama waaye amul ku gën a gën ki nga xamante ni dafay tudd baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah waxul julli waxul woor waxul asaxa waxul aj màkk waxul dara Seydina Ibrahima daf ko ne li tax may ñëw fii ci ñeenteelu asamaan mooy ngir xool ci doomu aadama yi te ñi ma ciy xool mooy ñi nga xamante ni ñoo gën a sell ñoo gën a rafet ñoo gën a set ñoo gën a kawe màqaama te ñoo gën ci mbindeefu yàlla yi muy lan ñuy tuddu baatu la ilaha illallah muhammad rasulullah kon gis nga mu joge fofu ci ñentelu asaman bi ñune mu dem ci juromelu asaman bi te xam nga ñentelu asaman wax nañ ne couleur ba khalis la te khalis mom dafa wex tal di melax ni wer bi kon katu yalla yi lu ñu wax ci tuddu yalla mom moy li nga xamanteni xol gis nga bi mu yegsee ci juróomeen asamaan bi ñu ne fa la dajeeg Seydina Haroun alayhi salaam Seydina Haroun lan mooy spécialité mooy bi ko Seydina Moussa magam ji bàyyee ca barab ba ne ko <coughs> maa ngi wuy ji sama boroom ca doj wa dinaa fa def mi fan xoolal ma njaboot gi ba bu leen seytaane këfa bu duñu jàtt yonent yàlla muusa dafa dem ab diir yàggul Moussa Saamir tàmbale ay mbiram wurus wa nga xam ne la ñu jële woon ca Égypte bi ñuy dem ñu dajale wurus wi def ko nag Moussa Samirou nettali nag ne ba yonent yàlla Moussa juddoo moom it ca la judd waaye dañ ko sànnoon ca àll ba ñu ne waaye dinaa Jibril moo ko doon nampal bu ñëwee baaram lay def nii rek muy sotti meew ci moom moo taxoon mu dem ba yor xaalu malaaka yi comme yonent yàlla instant boobu jëloon dara ëf ca day wax donc bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu wurus wi daal di ci móol aw nag ne nañuy jaamu nag wi ndax Moussa mii kat yàllaam ji daf ñoo abandonné moom abandonné na taxaw di ci wax ñu menacé ko ne ko boo ci waxee danañ la sàkkal pexe rey la ba sàkkal ko pexe ba bëgg koo rey Haaruna mujj dellu ginnaaw bàyyi leen musaa Sàmmiru ci xam-xam ak leer ko yàlla mooy ci malaaka boo ëfee ci nag bi nag bi wax ñuy dégg te fekk na rek ay xeetu zulmaaniw la muy xeetu Euh, maanaam luxus koo xam ne lëndëm la wor boobu ñu nga xam ne moom waroon nañ ko ko moom euh, moom moom moom euh, kii nu mu tuddati Seydina Haarun yonent bi juróomeelu at bi muy def Médine yahut yi dañ ko woon ne ko léegi dañ bëggoon ñu ñëw ñu waxtaan ci lii nga yor ñu xool naka lañuy ñuy ba ànd nekkete bañ koy woo di ko waxtaanal dañ ko tëggaloon ndëggu sërëx boo xam ne dañ ko bëggoon a rey bi mu ñëwee ñu ñëw fekk ab miir boo xam ne dafa daanu ba jeex ba des lu yem ñu ne ko toogal fii ñu ngi ñëw <coughs> ndekete toogal fii bi ñu ngi ñëw ñoom dañoo lal pexe ne bu ñu jénnee dañuy xool ñi gën a ponkal ci ñoom ñu ñëw rek màbb miir bi miir bi daanu ci kaw yonent bi mu dee mu jeex ñoom ñu noppal suñu borom waxyu ko loolu mu xam ko ñu ne yonent bi keroog ba mu fay génn sax dafa bàyyi saxaaba yi ndax mënu leen woon a code wax leen mbir mi ni mu demee mu daal di dem yoonam kon noonu nga xamante ni Seydina Haarun ñee wor nañ ko ba naroon koo fexeel noonu tamit ci ci juróomeelu nga xam ne moo nekk ci juróomeelu asamaan ba ci juróomeelu at bi tamit yonent bi alayhi salaam dund lu mel noonu foofee ak yaxuut yi bañ naroon ko cee faagagal suñu borom def mu rëcc maa ngi jégalu ñu ne juróom-benneelu asamaan bi yonent bi alayhi daje fa ak seydinaa Moussa bi mu fa dajeeg seydinaa Moussa boo xoolee seydinaa Moussa bokk na ci maqaamam bi nga xam ne jëlee na xeet wi Égypte muy Misra ba ñu jéggi ndox mi ba dem ba war a dugg Jérusalem muy la terre promise moo tax jërëjëfe Cheikh Moussa. ndax yàgg nañ bi ñuy nekk xale suñu kilifa yi di ñu wax ne terre promise boobu ñu wax Yerusalem mooy maqaama pays bi xam nga lu tax waaye du Jérusalem mu Zahir bële wala Makkay Zahir bële wala Touba wala Medina Baye wala ne du jëmm yooyu waaye maqaama xam-xam bi la. bi ñu demee ba war a dugg si ci dëkk boobu Seydina Moussa dafa am ñu mu yónni ne dem leen ngeen xool dëkk ba nan la bindoo ak ban technique ak tactique lañuy def ci guerre. ba mën fa dugg ba moom dëkk bi ñu ne biñ fa ñëwee dañ fa fekk xeet bu ñuy woowee jaabaa biriyatu foog naa noonu la ñu ne xeet lañ woo xam ne ay géant lañ ay ponkal la ñuy doon maanaam ka ca gën a tuuti dafay mel ni rek nga tegle Yékini ak Bombardier ak Tyson ci guddaay ponkal moo ci mooy ki ci gën a tuuti wax nañ ba wax ci ne sax am na ci koo xam ne tool na noo xamante ni moom bu doon dox ci géej gi ak liggéey gi xóot-xóot ci ci ci bu rombee tostan bi tuuti moom noonu la géej gi di yem ci moom bu soxlaa lekk day def nii rek jàpp baleen wala requin rek def ko nii ci naaj bi mu lakk rek mu lekk ko ci ci dayoo ponkal waaye am nañu ne histoire boobu ay yokk la waaye ay nit ñu ponkal lañ woon daal donc ñi nga xam ne bi ñu demee yër dañoo gis loolu dañoo ñibbisi ne ko yii Moussa xoolal yow ak sa yàlla ji dem leen ngeen xeex ñii duñu xeex ak ñoom de fii duñ fi dugg Moussa jëm kaw jëm suñu ne ko hoo oh, gis nga dañ la ne sa yow daal demal xeex ak sa yàlla ni comme génne ngeen ñu Égypte génne ñu fii dugal ñu fii du problème Moussa ne suñ borom maa ngi lay damaa bëgg yow suñ borom nga seedal ma ne la nga ma waxloo woon ak la nga ma yónni woon ci ñoom lépp def naa ko waaye man mënumaa garanti lu dul sama bopp ci sama pas-pas ak sama rakk ji ñoom nag mënulu ma leen dara wax rek laa mën ci ñoom ñu ne ci la suñu borom daal di sànni nattu ci ñoom di wër ci biir désert bi lu man ñeent fukki at ba Moussa dee ci àll bi Moussa jotul dugg Jérusalem te nee nañ foofu mooy terre promise maanaam mooy suuf su barkeel si nga xam ne moom la leen yàlla digoon ne fa la xéwal gàmm kon kay bu fekkee ne foofu la woon kon xanaa yàlla kay balaa ma koy jox kenn jox ko yonentam bi te yonent yàlla Moussa jotu faa dugg kon ndekete du foofa kon ba ñu bañee ci Zaïre la leen màqaama bi faat ñoom jotuñ ci. noonu lañ def ba ñeent fukk at di réer ci àll bi di dox rek ñii di dee fii ñii di tey ba ñu tasaaroo gis nga loolu kon yonent bi alayhi salaam tamit ci juróom-benneelu at bi la njëkk a jóg ne dafay ba mu nekk Medina dafay dem Màkka ngir aji ji wala ngir umra ji moom it bi mu ñëwee ba war a dugg Màkka waa Màkka génn baare ko ne ko doo fi dugg jaamaarloog moom jaama du jaamaarloo xeex mais xëccoog moom xëccoog moom ba ñu signé benn pacte ne ko daal boo xëyee rek bëgg ñëw dugg si nii te ñun wóoluwuñ la da ngay bett te xamuñu lan moo la tax a jóg te xare yu bari dox na suñu diggante kon doo dugg kon noonu nga xamante ni jaabaa biriyatu yi tere nañu waa banu israila yi wala boog waa banu israila yi ragal nañ ba dugg ba bañ a dugg Yerusalem même chose tamit la suñu borom dogal waa yi doon yor maqaamay jaabaa biriyatu yi taxaw tere maanaam yonent bi alayhi salaam ak ñoñam yi ñu dugg biir màkka ñu daal di ku dellu ba ñu signé la ñu signé at ma ca top muy juroom ñaarelu at bi yonent bi alayhi salaam ci la doog ñeuk duggu makka dem umra ci te juroom ñaarelu asaman bi ci la ak suñu mam ibrahim te mam ibrahim moy ki ñeuk a tabax kaaba gi buñ ko mëna waxé nonu ci nit waaw wala bok kiko ko ndax nenañ mam adama moko ñeuk ibrahim mam ibrahim moko ko te ba nuppi tamit moom moo ci njëkka a umra fo waaw fondation yi fa lañ ko fekk donc ñu yeesal ko mu daal di aj la muy aj ak umra kon mu doon juróom-ñaareelu asamaan te ci juróom-ñaareelu at bi tamit ci la yàlla dogal yonent bi dem biir màkka def umraam daal di dellu juróom-ñetteelu maqaama bi kon juróom-ñaari asamaan yi jeex na ñu nañu yóbbu yonent bi sidratul muntaxa ñu ne fa fa nga xam ne mooy yemuwaayu xam-xam yonent bi aley salaam yemuwaayu maanaam njeexitalu bëgg-bëggam moo doonoon ñëwaat màkka ndax bi muy génn màkka jooy na ñaan boromam ne ko dama sama suuf si nga xam ne fi laa xam fi laa bëgg fi laa min nangam may ma ko nangam suñu borom ne ko dinaa la ko may naa la ko waaye diggante bi ay at yooyu yëpp doxti juróom-ñetteelu at bi ci la yonent bi alayhi salaam yàlla dooleel ko mu ñëw def fatxu màkkatu muy ci la ñëw nanguwaat màkka ci loxo ñi nga xamante ni gëmuñoon diine gi daal di samp diine ji installé wu nag biir màkka kon gis nga muy kon mission woote bi ak tasaare bi kon dem na ba yaatu fi mu war a yaatu daal di mujjee fa mu tàmbale muy màkk kon mission bi jeex na moo tax juróom-ñetteelu euh, euh, taxawaay bi yemoo ak mun muntaha mooy lépp lu ñu war a xam ci walu xaalam bi ci lu gis ci bët sidratul muntaxaa kon muy juróom ñettelu maqam bi muy juróom ñettelu at bi nga xamanteni ci la yonent bi alayhi salam duggu makka juróom ñettelu maqam moy neena biñ ko jëlé sidratul dañ ko yobbu ba fa nga xamne moy barab ba nga xamne ne àlluwa yàlla yi ak khalima yi fa lañ nek di bindi dogal yi mu ne mu dégg yi di bind ci khalima yi di bind di bind di bind ba jékki-jékki nak tacc taxaw ndax li tax mooy daa gi nekkoon ci seen biir dafa jeex takk wow koŋ ba bindatuñ mu xam ne kon nag suñu borom ay dogalam yépp dogal na ko ci ni mu war a demee li ci des rek mooy def la nga xamante ni maanaam dogal ya ca lay feeñee muy fii ci àdduna lu ci nekk rek ka ko war a dox dox ko loolu tu maanaam euh, aras nga xam ne ñu ne foofa lañ ko fa tegal benn fauteuil boo xamante ni comme njëgënaay la waaye bu verte la mu doog ko nag xuusal nag ci xadara suñu borom bi maanaam ci maqaamal xudsiya yi fi nga xamante ni set wecc la def raxu dara te dara raxu ko macha allahu rabbi muy fukkeelu euh, euh, étape bi foofu la gis ñii jaamu yàlla taxaw ñii sëgg ñii sujjoot nga xam ne kon mooy indi buntu julli yi donc ba keroog nga xamante ni maanaam. jaxasoo ga ak suñu borom mel na noo xamante ni ñu ne bu xoolee kanamam gis yàlla bu xoolee ginnaawam gis yàlla bu xoolee ndeyjooram gis yàlla càmmoñam kaw ak suuf fépp gis yàlla yi kese fukkeelu maqaamu boobu noonu boo xoolee moo tombeek fukkeelu at bi nga xamante ni ci la yonent bi aji màkka bi mu ajee màkka ba noppi ci la woo jullit ñëpp ne leen ñëw leen ñu waxtaan ndax yaakaaruma wala bokk xawma ndax déwén dina ma fekk ci la wax waxam jamu yow al yawma akmaltu lakum dinakum wax wax ja yep bañu paré ci fukélu ak bobu ci la yonenté bi wacc liggéey kon ki nga xamanteni tay wala bok rañanam gogu ba mu yeggé ci fukélu étape bobu kérok la fan la fa joggé mom dé nekatul ndax bu xolé ci kanamam gis yalla ginaawam gis ndé gis yalla chamoñam kawam suuf bi rek biti kon nekatu fa mu dajé fukélu at bi kon nak day doxu mu daal dem nga gis ne kon maqaama yooyu yow lay jàngal yow jaamub yàlla bi waaye rawatina yow góor yàlla bi waaw léegi suñu borom ne wala xat kaana fi rasulillahi uswatun asanatun bu dee yonent bi mooy suñu royuwaay kon maanaam lépp li ñuy wër ci yàlla ak lépp li ñu koy sàkku ci yonent bi mooy model bi yépp kon kay fi yonent bi jaar ñun dañ fa war a jaar waa léegi ndax nit ki mën na faa yóbbul boppam déedéet parce que suñu borom daf ko ne subhaanallazi asra kon yàlla nee na man maa ko rañaane waaye du yonent bi moo rañaane kon ku ci nekk ci ñun tamit yàlla suñu borom moo la xëcc ci pay yàlla bi ndax la jafe na koo xam ne yaa ko wutal sa bopp waaye ku ci nekk ci ñun rek da ngaa mës dégg fu ñu koy waxtaane wala am ku la ko déey nga wut ko kon ba la ko déey mooy yàllaa ngi suñu borom mu ngi lay rañaanee mooy mu ngi lay xëcc ngir nga ñëw ci moom waaw léegi kon yow mi toog fële xeeb Seydina alin yow kañ ngay jot ci maqaama bi yow kañ ngay mel ni yonent bi kon yow réere nga li nga xamante ni moom mooy dëgg suñu borom gi bu ko defee ne kon ñu xam ne ci maqaam boobu la suñu borom dogal tawféex bu mel ni Seydina Alin suñu borom indi ko fii ñaaxaar mu doon dimbal ci waa ñaaxaar ngir seen ak mbaax ngir seen ak jëriñu bu ko defee nag ñu xam ne gars yi li suñu borom jéggalul yónent yi amul kenn ku ci rëcc wala li suñu borom digal yonent yi amul kenn ku muy wàcc ndax ñoom ñooy royuwaay bi suñu borom di leeral loolu yónent euh, si yónent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sayidina Muhammad daf koo xamal ne mu ne ko euh, kii nga xamante ni moo di suñu maam Aadam mu ne ko dogal na dogal na ci moom mbaa bokk suñu maam Ibrahim mu jur Isaaq mu doon yonent mu jur Yaqub mu doon yonent comme ni noohin jure woon ñeneen ñu doon yonent mu di ko lim di ko lem di ko lim ba ci yonent yàlla Isa waaye tamit mu limaale ñeneen ñoo xamante ne bokkul ak maanaam yonent yi doon ay mbokkam yoo xamante ni maanaam jote nañ ci leer gi kon muy wone foofu ne nit ki mën naa jot ci leer gi doomam jot ci leer gi kon mën nañ koo donn waaye nag bi mu joxee yeneen tur dafay wane ne tamit kon leer gi doonut loo xamante ni donn gi dafay doon loo xam ne sa waajur dafay jóge rek mu mu rot ci yow déedéet donn gi mooy da dañ la ciy boole da nga koy wuti comme ni nga xamante ni moom la ko jur yi wutee woon ci nga koy doog donn lu ko moy keneen ku jóge fa leen wuti ko yow bés boo ko bëggee dangay dem ci moom sànq bàyyi njege bi ñëw ci oto mu ngi koy waxtaane ne fa nga xamne fa la sang bi doon dal bay geey ca daru koko fekke won na jamono Cheikh Moussa bu yengu yengu amone keur Cheikh Moussa day dajale njabotam yep ñu tukki genn daru ngir bañ rek mbirum Cheikh Moussa waaw ñu ne ginaaru Cheikh Moussa bu wala ginaaru bu dawon ba duggu fa sax dañ koy dakk ne ko cham yow ya ñak jom waye xam nga ni yow fi waro fe duggu ndax nangam ak nangam kooku fekke Cheikh Moussa magam don ponkal yi ci keur Cheikh Moussa ay seexu Seex Musaa ñëw fa nga xam ne fekke nañ Seex Musaa suñu borom fatt buntam ba yàlla dogal koo xam ne fekkewul Seex Musaa naanee ci ñu fekkee naanee ci koo xam ne sax fekkewul Seex Musaa ndax xaw ma ndax Seex Asan foog naa fekkee na Seex Musaa am déet waaw gis nga lool ba suñu borom dogal bàyyi géey di dal këram suñu borom doo a dogal ci moom mu yëg pay yàlla bi jébbal boppam bàyyi géey kon maanaam muy wane ne kon mbir mi ñaari bunt yëpp mën naa am waaye bunt bi gën a wóor daal mooy yàlla moom dañ koy wuti la preuve mooy Namrud dafa doonoon buur boo xamante ni buur bu doy waar suñu borom may ko comme Firawna mu dund ñeent fukki at loolu lekk lu ko neex def mu ne wax dëgg yàlla gars yi man gisuma leen beneen borom bu dul man mu xëy gént benn gént bu doy waar mu ne dafa gént safara jóge ci asamaan si doon lu mel ni bul comme jant bi ñëw rek daanu ci palem bi bi mu daanoo ci palem bi rek daal di tasaaroo ci nguuram gi taal lépp bi mu xëyee wax ko ay buxaabaam ñu ne ko ah dina am xale bu góor buy judd boo xam ne mooy yàq mooy daaneel sa nguur ñu ne Namrud léegi plan bi mu tegoon mooy jigéen ñi dafa leen wutaloon ku leen di topp saa su jigéen mu dafa jël góor ñi yóbbu leen ci àll ba tëj leen fa saa su soxna yi nekkee di gis baax mu bàyyi góor ñi ñibbisi ci kër yi ndax xam na ne duñu mën a sëy te ñoom booba seen pas-pas bi ñu gëmoon da leen ko doon tere bu demee ba jigéen ñi jeexal seen gis mbaax mu jëlaat góor ñi yóbbu leen tëji leen mu di ko def di ko def ba bés yàlla dogal bi jigéen ñi di gis mbaax mu indi góor ñi way juru suñu maam Ibrahima bi dafa dugg si rek yàlla dogal soxna si mbërëgam jeex ñu sëy ci suñu borom def ci doom bi ñu amee bi suñu borom defee ëmb jàpp ci suñu borom dogal ëmb bi màggul lu ñuy gën a sori ëmb bi di gën a tuuti ba bi muy wasin mu doon guddi mu jël ko yóbbu ko ci benn montagne nëbbu ko foofu bi ko fa yaay ji nëbbee ñëw kenn xamul ne suñu maam Ibrahima judd na ci niñ ko nettalee ci zahir léegi moom saa yu xëyee soxna si dafay dem waaye bu demee dafay fekk suñu borom def kéemaan ci maam Ibrahima bi nga xam ne li ab liir de war a màgg ci weer suñu maam Ibrahima di ko màgg ci benn fan. li ab liir di war a màgg ci at li nit ki di war a màgg ci at suñu maam Ibrahima di ko màgg ci weer. biñ defee fukki weer ak juróom-benn presque suñu maam Ibrahima am na fukki at ak juróom-benn ci ku ta yor na taxawaay ko am fukki at ak juróom-benn ñu ne lan la doon dundee suñu borom dafa def ci moom kéemaan goo xam ne baaraamam yi bii bu ko maccee day génne meew bii génne lem bii génne tàndarma bii génne ndox ba suñu borom dogal bi loolu amee yaayam ñëw seet si ko fekk ko fa lan la ko Ibrahima suñu maam Ibrahima njëkk a laaj yow yow sama yaay. kuy suñu borom mu ne ko ah xaw kuy suñu borom de waaye man sa baay mooma moom mu ne ko sama baay boobu ku ko moom mu ne ko sa baay de namrut moo ko moom mu ne ko namrut ku ko moom mu ne ko baay ba sa baay ñëw bu ñëwee nga laaj ko baay ji ñëw mu ne ko waa baay man kuy sama borom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay kuy boromam mu ne ko man mii sa baay mu ne ko yow baay kuy sa borom mu ne ko namrut mu ne ko Namrud kuy boromam mu ne ko Namrud mooy yàlla bu laajati loolu xuloo ak moom suñu maam Ibrahima ñëw fekk leen ci barab ya waaye balaa ma leen fekk ci barab yi suñu boroom defoon na ci moom yëg-yëgu wër boppam wër boromam mu ne man daal bëgg naa xam kuy suñu borom parce que lii ma gis nii lii man fii ma nekk nii man yëg naa ni indiwuma fi sama bopp te yëg naa ne sama jëmm ji nii mu bindoog nii mu melokaanoo du man maa ko defar kon am na ku yoon mbër yi kooku mooy kat ñu ne musi gi gis bidéew mu ne ah kon de suñu borom a ngi nii mu xool bi gën a leer ci bidéew yi mu ne mu ngi nii bidéew bi suux mu ne man daal luy feeñ ak a nëbbu daal man bëgguma ko kon kii suñu borom mel ni moom dafa xamoon yàlla mu ne kii du borom ñu ne mu toog ba yàgg gis weer wi mu ne ah kii de moo gën a leer te gën a yaatu kon xam naa suñu borom a ngi nii weer suux mu ne yow suñu borom boo ma dimbalul man dinaa bokk ci ñiy sànku ndax lii xaw ma ñu ne mu gis jant bi mu ne ah kon suñu borom a kii moo gën a leer ànd ak tàngoor te ñëpp yëg nañ ne teewaayam kon suñu borom a ngi nii timis jot gisul jant bi mu ne maa ngi seede mu ne maa ngi seede ne ni mu ko waxee mu ne inni wajjaftu de avant bala lol mune man maa ngi seede ne li ngeen di jaamu ni man jaamuwu wuko mune inni wajhtu wajhi allazi fatara samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni wajhtu mune naka man ibrahima mangi ngi wëlbatiku ci zahir non lañ koy firé inni wajhtu wajhi allazi maa ngi wëlbatiku ci kanamu ki nga xam ne moom moo bind asamaan si ak suuf si te na mu gën a rafete te bokkuma ci aji bokkaalekat yi kon kay keroog la gindeeku waaye dëgg-dëgg ca xati xaqiqa lii mooy man Ibrahima maa ngi kanamoo wajhil lazi kanamoo ki nga xamante ni fatara samawaati mooy ki nga xamante ni moom moo tàllal asamaan si ak suuf si wal ard xanifan ba lépp ànd mel ni mu war a mel wama ana minal mushrikin man bokkuma ci waaye bokkaalekat yi kon ndekete Ibrahima da doon def sirru ilallahi da doon dox jëm ci yàlla moo tax mu xool li muy xool comme ni la ko baatu laa ilaha laa di jàngale mu xool mu suuf mu ne du loolu du suuf si du asamaan si du biddéewi du nangam du nangam ba keroog yëg-yëg bi ubbeeku ak tàbbi ci moom mu ni inni naka man wajjaxtu kon kanamoo naa wëlbatiku naa jàkkarloo wajhi lazi kanamu kooku nga xamante ni sama waatu moom moo bind asamaan si wala ard ak suuf si hanifan ca na mu gën a yembee mu ne wama ana minal mushrikin bokk bokkuma ci ñuy bokkaale kon xam mee na yàlla ak lu dul yàlla buñ ko mënee waxee noonu kenn keroog la suñu maam Ibrahima gindee ko kon nga gis ne kon moom sirroom seyroom muy voyage am seyru ilallaahi la doon def mooy dox jëm ci yàlla mooy ñun ñëpp ba ñuy wër yàlla jëm ci cheikh al bi waaye subhaanallazi asra bi abdihi kooku dox ci biir yàlla la yonent bi doon def noonu parce que suñu borom mu ngi koy leeralal yeneen bunt ginnaaw ba mu gindeekoo ci biiram ngir mu xàmme pays ndax ci biir rañaan googu lañ ko won àjjana won ko sawara wan ko malaayka yi won ko loolu yëpp muy dox bi nga xam ne mooy tax nag nga mën a dégg pays bi ràññee ko nag mën ko téye doxal ko macha allah rabbi kon foofu la suñu maam Ibrahima doxale waaw. bu fekkee ne suñu maam Ibrahima muy yónent moom moo toog am yëg-yëgu war a xami yàlla ba di ko wër ci lépp ba keroog suñu borom defal ko ndimbal mu xam yàlla yow nga ne kenn du xam yàlla kon wedd nga suñu maam Ibrahima te ku wedd suñu maam Ibrahima tàkk ndax suñu maam yónent bi alayhi salaam sax suñu borom daf ko ne nanga nanga na nga diine woo wala boog na nga yoonoo yoonu suñu maam Ibrahima xaw ma sax nuñ ko waxee te aaya millati Ibrahim sa diine maam ibrahim te diine maam ibrahim lan la woon moy li ma fi wax ni moy xam yàlla kennal ko te foog naa sànq ci waxtaan wi nee la suñ maam Ibrahima bi ko yonent bi fekkee ñeenteelu asamaan ne ko loy def fi mu ne ko dama fi ñëw ngir di xol ci doomu adama yi ñi nga xamne ken gënu leena rafet gënu leena bax gënu leena yañ gënu leena set gënu leena sel muy ñuy tuddu baatu la ilaha illallah muhammad rasulullah lool moy diine suñ maam ibrahim kon loolu mooy li nga xamante ni moom la suñu maam Ibrahima maanaam dimbali ko ba jot li nga xamante ni moom mooy dëgg bu ko defee nag fi ñuy daanelee kàddu gi buñ ko mën a waxee noonu ngir waxaat ak yéen suñuy mbokk suñ boroom dafa wax ak yonent bi ci suratul anham mu ne ko xul waxal inna huddallaahi huwal yéeme mu ne ko xul waxal inna hudallahi huwal huda waxal ne njubug yalla gi moy ak njub kon njub bi nga xamne yow siril bi mom ngay jele ci ndutu bi njub gi nga xamne mom man jola bi mom lay jele ci bois sacré bi njub gi nga xamne mom la wolof bi di jele ci leul ba yoy yëpp suñu borom neena du njub neena inna hudallahi huwal hudda njubug yalla gi dal mom moy njub waaye kan mooy njubug yàlla gi ak lan mooy njubug yàlla gi looloo mat a laaj kan mooy njubug yàlla gi ak lan mooy njubug yàlla gi waaw mu ne kon xul inna huddallaahi huwal hudaa xoolalam ci teg mu ne wa umir naa li nuslima li rabbil alamin wa umir naa digal nañ ñu boo xam ne ab dogal la li nuslima <coughs> ñu jébbalu ñu jébbal suñ bopp li rabbi rabbil na borom xaalam bi mooy ñun ñëpp dañoo war a jébbalu ci yàlla léegi yéen suñuy mbokk yi ñuy déglu yéen nan ngeen di def pour jébbalu ci yàlla léegi yéen na ngeen yàlla duñ ko gis yéen na ngeen yàlla duñ ko xam yéen na ngeen xam leen fu yàlla ne te suñ boroom wax fii lu leer yonent bi mooy lan mu ne wax umir naa ni mu ko xool ci inamal amr muy lan bu ma dogalee ma digal ma bëgg lo xamanteni manam dogal la bo xamne dara mënu ko téye manam amatul dellu ginnaaw mu ne kon lool baat bobu la suñu borom indi mu ne dogal nañ ci yéen te diggal nañ leen ci lo xamanteni ni faxat la sik sak amul dellu ginnaaw li nuslima ngir ngeen jébbalu ngir ñu jébbalu li rabbil alamin ci ki nga xamne ne mom alami muy suñu borom waaw léegi yéen nag léegi yéen nu ngeen di def fan ngeen di jaar yéen ba dem jébbalu ci yàlla man question boobu laa leen di laaj képp xam leen ni képp ku wan Seydina Alioune ginnaaw mii ci yéen waa Ñaaxar foo mën a jublu safara nga jëm waxuma ko de suñu borom moo ko wax muy alxuraan gii moo ko wax mooy jébbalu leen ci man yàlla yéen nee ngeen yàlla duñ ko gis yéen ne ngeen yàlla duñ ko xam yéen nee ngeen xamu leen fu yàlla ne kon kay loolu mooy yéen suñu boroom génne na leen ci yërmandeem yéegi yéen kay iblis la leen yàlla booleel parce que ku jébbalul ci yàlla moom mënoo bokk ci xisbullah yi muy ay liggéeykatam ay soldaaram waaw waaw ku bëgg a bokk ci équipe nawetaan bi ba pare ne man duma dem bindu du ma wut licence ah bu football jotee doo football jamais mukk bu ñu defee fii boulangerie bii nii nga ne man ñaaxaar gii ci lay nekk mburu du fi dugg mburu ci boulangerie bii lay yem te duma dem ci boulangerie bi di nga bëgg mburu mutta la kon suñu borom leeral na foofu ne la mu digle te du ca dellu ginnaaw moo ñu jébbalu ci moom kon bu fekkente ne xamuñu fu yàlla ne bu fekkente weddi nañ ne dañuy gis yàlla kon fu ñuy jébbaloo ci yàlla mu ne inda lazina yu bàyyi woon a ka yu bàyyi woon a laa ñi jébbalu ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci man lañ jébbalu yaddullaha ak aydihim loxo yàllaa tegee ci seen kaw loxo te loxo yonent bi la woon kon xanaa yonent ba moo de yàlla foofa waaw léegi ñun ñi nga xam ne amuñu sansu dajeeg Seydina Muhammad léegi kon ñun nu ñuy def moom jóge na fi te moom la yàlla di nangoo mbiru jullit yi léegi ñun nu ñuy def kon kay ñun jaratu ko ñun nañ démissionné bàyyi rek dem dem delluwaat ca aada ya ak cosaan yi rek dooni séeréer ak yi joolaa ak i leneen te suñ borom nee nañu séeréer ak joolaa yooyu yëpp du njub kon yaru séeréer suñu borom soxlawu ko yaru joolaa soxlawu ko yaru manjaagu yëpp soxlawu ko kon moom ban yar la soxla mooy ki nga xamante ni mooy ki tegu ci njubug dëgg gi te njubug dëgg googu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi alayhi salaam jóge na fi kon ana njubug dëgg gi mooy leer googu nga xamante ni du fi jóg te suñu borom di ko jottali ci ay jottali noonu la ko jottale ba mu yegg si fii tey ci ñaaxaar kon yéen waa ñaaxaar njubug yàlla gi suñu borom def na ko ci Seydina Alin ci lu fës waxuma ne defu ko ci keneen de waaye gisuñu ko ci keneen ku ko fi woote woo ñun moom lañu gis mu di ko fi woote woo kon nag ku ko fi romb rek di ko wëri feneen faat na la doo am dara waaw doo am dara benn ngëneel ak suñ borom du la dab macha allahu bi kon nag xam leen ne lii li tax ñu sonn ci sonn ñu ci ngir wutal ay Seydina Alioune ay taalibi wala moom mu ciy sonn ngir wuti taalibi déedéet moom tamit dafa am yat wut gàlloo ci yatam ci kawam mooy lan li yàlla waxoon yonent bi ne ko lii ma la jox nii bu ko wanteer te nag nanga ko jottali te yem ci jottali ko kese man yàlla maay ki koy seede ndax yahud yi dañ ñëwoon ne yonent bi alayhi salaam ne ko yow ñun ñoo la war a seddeel lii pour wane ne dëgg la te ñun duñ la ko seedeel mu ne ko na la doy ñun yàlla seedeel nañ la ko ak malaayka yi kon loolu moo yéen góor yàlla yi bu leen xalaat walla di xaar ku bokk feneen di ñëw pour seedeel leen ñu ne ah gis nga kii de pourtant du yàlla yàlla te aarif la xam na yàlla li ñuy wax lay wax déedéet seede bi yàllaa ko yor yéen tàllal lañ rek noonu la ko waxoon yonent bi léegi nag bu ko defee nag tàllal boobu nag mooy li nga xamante ni tey bu dee yàlla dina dina duma aarif mooy foofu mooy nga doon aarif boo xamante ni li sëñ Tuubaa waxoon ne murit dugg àjjana jaaxal waaye murit dugg àjjana moom kese te amul ku mu yóbbaale kooku mooy ab toskare te kooku mooy mooy mooy mooy xaw ma lan gàcce kon mooy yow aarif bi sañuloo noppi waaye xam nga coono yi yëpp wax dëgg yàlla ci sa saayir yombul tey amul leneen lu gënoon a neex ñu toog fële suñuy soxna ji ñuy njoñal suñuy ginaar ñuy lekk ka naan di naan suñuy sedd di mbaa yàllawu kon soxna may jàpp suñu mor sa njàmbur dara gënu koo neex ñu bàyyi fa lépp sol suñuy gañ gañilaayu diis ñëw di ñàq di siit ci tàngaay bi nga foog ne pour li ñu neex yat mi nekk suñu kaw la rek mooy lan yow mii ni keneen sonnee tey bàyyi gay sacrifier boppam sonn ko waroon a mën a doon lu ne ci zahir mu sànni loolu yëpp ngir baaxal ruuxu jaam yi coono boobu mu sonn nag yow ba nga jot yow boo bëggee fay naar bi xorom bi mooy yow tamit da ngay jéem a sonn soono bu mel noonu amaana doo am coono bu ki tollool ndax yàlla dafa organiser garaade mbir mi waaye sax nga jéem ci sonn sax ba ñaar ba ñett wala fukki nit sax dégg xam-xam bi waxuma jot di mais dégg rek ne mu ngi nii lii la moo tax Cheikh Moussa dana wax naan wax leen rek dee leen wax rek waaye la koy jotale yàlla suñu borom la dee leen wax rek waaw kon Seydina Ali li tax mu jël millions yu bari def tànt bii woo nit ñi jox leen ay xéewal joxe ay pass joxe eh, xaw eh, ay auto def lu ci bare bare te mu doon lo xamne ne nako dajale ngir nawet baa ngi ñëw ak leneen ak leneen ngeen foog ne pour woné bopam ak woné dayom déedéet yërmande la ci yéen ndax xamna ni mënul dugg ci kër gu ne ne leen mbir maa ngi nii comme ni ko yonent yalla insa waxoon ci injil muy évangélisation aller semer la bonne nouvelle waaw dem len ngeen wax ak jaam ñi dëggug yàlla gi comme xamna ni ñun nit dañoo am fu ñu yem ndax Seydina mohammed sax jotu la dem fépp ci àdduna bi wax ak nit ñi kon dafa am ñu mu koy jot ñoo am ñeneen ñu koy jotali ndànk-ndànk waaye nag dañuy profité ci bës yu mel nii nga xam ne danga mën a dajale ñu bari li nga wax dana mën a yegg fu sori ngir ñi nga xam ne ba tey dégguñ ñu mën a dégg macha allah rabbi kon yàlla na yàlla dimbale ñu dimbale jaam yàlla yi ba ñu mën a dégg ak xam dëgg gi jariñoo ko ba ñu xool zahir bi fa mu feeñee ndax moom Seydina Ali mii ñi koy xeeb. xébu ci ñu wala bok ñi ñi nga xam da dafa xébu ci ñom ci say tay biñu toggé ci ngon amna moromam bo xamanteni ño defando defandoo enfance Cheikh Diomaye moñu ko do wax tay ku yalla baxal la ci saayir ba mu yor ay ndomb tank yu bari ci walu nguur bo démé tay kërëm di nga gis ño xam dinañ dem rang fa pour joti saayir waaw légui bu féké dina am ñu dem rang fa pour joti saayir loolu moy ñi nga xam ñom la yalla wax ne dañoo sen al-akhirah aduna ndax li tax kooka la mu yor lu muy kawe kawe doon moromu Seydina Ali nga xam ne ñoo foowandoo jamonoy xale sàcc màngoog sàcc ginaari jàmbur lakk ko lekk ak yooyu yëpp ñu jaar ci tey suñ borom jël Seydina Ali na ko sama maqaama bi fii ci ñaaxaar yow laa ko bëgg a doxal nit ñëpp wala boog ñenn ñi won ko ginnaaw jox kële mbagg ah bu ëllëgee dana metti ci ñoom de dana tàng ci ñoom lool waxuma ne buñ jubli ci kële de ndax yàlla zaay rek baatin la def waaye jublu bi njëkk bi mooy jéem a jublu ci Seydina Ali mii ndax li tax mooy tey la sëriñ gëm sëriñ Touba yomb gëm alaaji Malick tey la yomb gër Baye Niass tey la yomb mais ñoom seen jamono comme lii Seydina alin di daj fii ñu lay bañ di la xeex di la dingat di la xeeb ñoom loolu lañ doon daj waaye nag comme résultat am na wàlli si dafay yomb xam nga bu ñuy togg nit ñi mën na ñëw ba waaye bu ñu yàkkee ba woote ah ñëw añ si nag moom dafay yomb lool ndax mbir mi sotti na ba waye fi waji di jaar di dem ci marché di ndug di lijjanti ba ñew ba mëna taxawal ha ah, koku mom gaay yi mën nañ laa seetaan moo ñu né bo ki nga xamné da ngay wut kenn du la gungé waye bës bo amé ñepp ñew lek la. ñu ëppal ndariñ fuuf ka nga jël ko dubbu ko fenen nak suñu borom loolu mooy sa alal te fenen foko yublu jublu ko fa fudul man rek perte nga kon nak sama gaay wa ñaaxa ah ku gisul yalla perte nga macha kon sayidina Euh, waa daara ji ñu ngi leen di santaat di leen gërëm di leen gën a feeñalaat wax dëgg yàlla suñu suñu suñu mbétteeg suñu cofeel waaye suñu cant ci yëkkati gi ngeen ñu yëkkati wax dëgg yàlla cërale ñu cër bu mel nii fii ci barab bii wax dëgg yàlla mu doon lu rëy ci ñun ndax dama naan bii mooy bi njëkk mu am mbala boog muy ñaareel mu am kon loolu am na lu bare bare lu muy wone donte nag wutuñ ci loola waaye boo gisee sang bu mel nii def ko dafa bëgg a won jàmm yàlla yi won tamit yéen taalibe yi ne mbootum suñu borom dafay sotteekoo ci fu ci ne yow li ci am solo mooy xamal kuy sa kilifa waaye nag xamal ni rek fu wax bi bënnee rek sa kilifa mooy waxee foofu rek bu ko defee nga jël ko nga jëriñoo macha allah ñuy tuub nag ci lépp li nga xam ne rek rëq-rëq la rek wala maanaam lu leerul la waaye la ñu namoon mooy mu leer nañ macha allah waaye itam li ñu bëggoon a yaatal lépp itam mënusee ko yaatal ndax foog nañ ni kàddu gi dina yaatu jëm ci ñeneen macha allah ah yàlla na yàlla def dégg gi ñu ci bëgg waaw suñu borom defal ko jaam ñi waaw ba ñu ñëw wuyu si Seydina Aline ak njaboot gi macha allah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma salli ala sayyidina wa jërëjëf